inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jàlle mbokk mu baax mbokk mu baax mbokk mu baax borom xam-xam ku sell ku texe lamiñam ku rafet liggéey ku jub ku baax a baax a baax soo xam naa ko baax a baax a baax bokk nañ dara ci kër daara yassa wax dëgg yàlla ku baax ku baax a baax ku baax ku texe lamiñam ku jëfandikoo xam-xam ku jub ku sell ku rafet xol dama dama la yàlla na ko yàlla jàng ku nangoo liggéey itam ci moom la dañu dañu daara bokkoon ci mbir ku teel a tari alxuraan la ku sell ak alxuraan la <clears throat> ku moom kéemtaan la moom ci kéemtaan yàlla wax dëgg yàlla waaw ku noppi ku xam xam-xam ku bëgg xam-xam ku jëfe xam-xam ku sell ku ku kuy moytu waaw kuy moytu lu bëree bëri moytu wax moytu jëf moytu melo wax dëgg yàlla lépp dañu ci moom saa sa moo ñu ko sant wax leen seen way baax de dee la ci des ngeen noppi ca te wax dëgg yàlla lu baax rek laa ma ci moom leneen xaw ma ko lu moy lu baax ci moom jub xam yar xam teggihin foo ko gis ba ñu ngay jëkk gis foo ko gis rek ba ñu ba ñu ngay jëkk gis muy muñ ndeysaan loolu nag di ko jëlee rek moom mën a may loolu bëgg xam-xam lool fonk liggéey lool jub lool doylu lool waaw xam nañ ko ci moom lépp luy yëngatu ci xam-xam loxo ma ngi ca waaw kon nag ñu ngi koy ñaanu yàlla yal na ko yàlla yaram te jégal ko baax na. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah